balaa ma tàmbali xam leen di tegal lii président bi wax ba pare. nekkoon na ci aéroport bu Yoff nekk fa ci Wakam ngeen gis jëf ju ñaaw ji nguur gi def dindi miir bi toj ko dàq miir bi mu dugg ci biir génnee ay hectares yi hectares yoo xam ni dañu ko jaay ci anam yoo xam ne teguwul ci yoon menacé nañu sécurité aéroport bi sécurité avion bi. moo tax ñu yàkkamti naa dañu def aéroport bu Ndiass di ko pëtëm pëtëmee jaay nañu fii te Ndiass pareegul ndax mu mënul pare fii juróomi at te bu ñu moytuwul danañu ñàkk buuxu ñàkk ceen ba ndax aéroport dana yàqu te du pare lépp nag ngir alal ak spéculation foncière jaay nañu Wakam suuf su bare tabaxee ko monument ci condition yu leerul xam ne dinañ ko leeral bu ñu ñëwee incha allah. archivé par archipo.com ñaawteef yi nga xam ne vraiment pouvoir bi fi nekk mu ngi koy def. archivé par archipo.com bokk. suuf nekk na loo xam ne askanu Sénégal yëpp dañu war a am un système de gestion boo xam ne ku ne da nga war a mën a am chance si sa dund nga mën a am kër goo dëkk waaye bu fekkee nii la ñuy def bërëb yi gën a sacré ndax aéroport xam nga ne kenn waru ko def jëf ju ñaaw ji. ku bàyyiwul aéroport nag foog naa doo bàyyi marché doo bàyyi daral doo bàyyi lenn kon sénégalais xam nañ leen di xaar nguur gi bu fi toogee au delà du 26 février ñëpp dinañ leen génnee toj kër yi jaay ko. defe naa ñun ñëpp a déggandoo lii ba tax na euh, ku déggul wakaam xam nga wakaam ku déggul ngor tamit xam nga ngoor ñoom ñaan ñooñu laa mën a wax parce que ñooñu leen lésé. donc euh, mënutoo comprendre quoi parce que li tax mënutoo comprendre démb dem neen fa léegi da ngay gis ay haut gradé ñoom ñooy garde fi nga xamante ne ñoo koy morcelé te defe naa ne dans l'armée patron yi ñoom ñoo war a wax sukk yi day leen mais léegi da ngay gis ñiy gradé ñoom ñooy dem di garder fi nga xamante ne mooy morcellement bi démb dem neen fa fekk fa benn commandant mu ne fan ngeen jëm si loo xamante ne suñuy maama fa daan bay den fa miin comme ndox am nañ droit dugg foofu xool lu fa ne parce que li tax ñuy bay ñu dugg fa dafa am loo xamante ne jubadi gu mag moo fa nekk te se neen fax ay ministre te ce qui est grave c'est ça Casamance c'était comme ça feneen c'était comme ça pourquoi les gradés ñoom ñooy garder foofu loolu fu mu tegu léegi ñu jël Yoff jox ko vingt hectares les Ngor les Ouakam mais ñun du ñuy bombongu kenn ku jot rek yéey ni ku nu déggul tim xam nga nu ñun li ñuy wax dañuy tàmbali parce que nit da ngay tàmbali si diplomatie dafa am xam foo xam ne buñ fa tolloo bu dee ba su dee jotee ku deewul doo gor te foofu leen tollu li tax ñuy wax yépp nit nag da ngay deme xel deme xel mooy que ne ñun li ñu war ñi ngi def ñi ngi def si diplomatie nag mais nak dafa am fo xamne ne buñ fa tolloo ñun dañuy mayé sunu ru, parce que amul kenn kuy dé di déki parce que trop c'est trop wakam amul estat amul dara y'a rien du tout quoi bi hatna ñaata cité mo fi né da nga fay dugg fekk fa lebu amul wala nga dugg fekk ko xamne ne doomu wakam la amul parce que timik suba jarna baye xel man duma jox sax importance job sar parce que timit nit da nga wara goré gore ba muy campagne dañ naka yof yoof fa campagne mu ñew fi bokk ci convoi wu fi la don campagne di agno ndox nit ñi di reeru ndox nit ñi ta fierté la ñu nan ministre bi yoof la dekk mo représenter collectivité yépp dafa am solo parce que da kay woté bu démé présence danaan yof wakam Ngor yoof ma len gérer donc pourquoi bu la joxé ben code sax bu dé 20 war nga ne xaaral ma tas ka ñaar ñii mos ñii mos monoon na def loolu mais boo jëlee rek tee dañ koy rafetlu parce que suñuy mbokk lañ koy jox mais doxalin bi moo rafetul te dañ sur le 44 07 les deux tiers restent demeurent à la collectivité de Wakam parce que bi ñuy cent en 1947 dañ fay yoof dañ ko suspensionné jox ko 600000 jox ngor 600000 Wakam na moom buñ ko jox bu ñuy delloo seen suuf nañ ko ko delloo. même ba ci biir tubaab bi mi ngi naan les wa de mauvais soir parce que bobu mi ngi ñuy bëgg jël li nga xamantene ñoko mom ñu bañ donc nak buñ mëne jox ñi nga xamne dañ leen suspensioné won légui Wakaam nu muy def ngortim nu muy def té et puis mënatoo comprendre da ngay jékki-jékki rek ñuy pousse di puus génnee fleuretti rek jékki-jékki rek bâtiment bi jóg lool duñ ka bàyyi mu dem diplomatie nak lañuy tambalé def nañ ko fi fii si mbàkk yu fay suñuy kilifa génn na bàyyi leen ñu bàyyi looloo tax ñu bàyyi parce que nit day dégg waxu ko kilifa mais na bii sànni tàccu la parce que suñuy kilifa am na foo xamante ne tollu neen fa te am na lu nu dee dafa am loo xamante ne xel nanguwuka ka li ñuy coow fii la nekk wakaam kenn ëppalew si lébu yi mais xeexunu ay xeexu tukulóor wala ma demba lol dañ ko dépasser mais defin bi mo rafetul parce que le président de la république Macky Sall mo taxaw fi ci campagne bi deg ngeen ko na souci dañ ko caxat caxatee mom bu falo dina delo nit ñi seeni souf nanu delo sunu suf, comme ñun souf len am demunu fuuta di fa xëccoo ay nak wala demunu fenen di fa lenen, lenen parce que dekuway bi mo xat quoi bu xaté nak da da considération mais jël ben nit mu nek promoteur nga jël ay hectare hectare may ka ñu milliardaire la nga souffrir dafa ñu fa am ñu fa donc dina rafet sax nga delo leen ben bu dafa am solo li ni wax dañ nan lebuy dañuy wax waxu waxu mais lebuy demu fenn di si li nu tette rek lol la ni donc président de la république li ma ñaan moy que nga jox ngor sen wàlla jox wakam sen wàlla jamono ñoy suñu taxaway président de la république Macky Sall ko bu baax à chaque fois qu'il passe à Wakam bu ñu sollicité pour son sort en tant que politique de ko deux élections pour ba mu Benen aussi il faut nous interpeller le président de la république par rapport au ministre Doussard. Il y a eu des moments où nous a le haut conseil des collectivités territoriales man mi nga fait partie un peu de la basse classe politique de Wakam il m'appelait pour wax pour que nous le conseil il me demandait même de venir chez moi ak ñun ni ñu mel ñu soxlaw ñu nit pour dila la defal dañ ko def ak cœur ouvert ba tous les conseils ont voté pour le président de la république Présidentiel yep yi ñu ko taxawal fi waxam dafa taxawal président de la république donc nak war nañ reconnaissant envers la population de Wakam parce que lepp lu nous ñu sollicité defal nañ ko ko aussi c'est c'est un dirigeant bo xamantene bi limu soxla kuy wax mu di la jaar ak mu def rafet à travers un ministre ex ministre Mame Mbaye li mu ñu defal du du mais lu mu gàtt gàtt am na lu mu defal loo donc nag président sa taxawaay sa les trois communes yi nga xamante Ngor ak injustice bi am lañ bëgg réparer parce que nous concevoir nous réquisitionner ay terre yo xamantene ay nit pour le bien de tout le monde ñu nangu cédé bu ñu ba tuba bi légui Sénégal ñew continuer ba aéroport bi yobu ko jass wara a aéroport bi dañu buñuy restituer dañ wara joxoon ñu nan lañ di def ko jox keneen ci biir aéroport bi mais tu es ébahi sa xol lan mo koy yan nit lañ ko jox fan lañu ñu ani ñi ko seen maam doon bay ani ñi ko seen maam doon bay est-ce qu'ils sont considérés dans tout ça c'est décevant c'est décevant dafa ñaaw da ngay jóge ba Fongolimbi tu as ta part dans cet aéroport da ngay jóge fu nek, tu as ta part dans cet aéroport ani ñi ko joxe woon Wakaam aussi de bonne foi bëggul won sa jaay ni ak ngorom dañ ko laaj mu ne jël leen

dañuy tuumaal ci coow lu nekk on ne veut pas de ça et notre démarche dépassé nañ génn ci dëkk bi di di yëngal wala di def quoi que ce soit contexte dëkk bi sax mayuñu ko ba ñuy def affaire yi animosité yooyu donc nag dañuy démarcher le plus passivement possible ak avec une grande sagesse en respectant le président de la République et ses autorités na waxaa ñi nga xamante ne ñoo yore aéroport bi di ko doxal na waxaa ñi nga xamante ne avons yoree aéroport bi pour jox ku nekk wàllaam toujours dañu nous beneen bi regardez moi bi dem lors des élections législatives lan moo xew Wakam Doussard était tout le temps à Wakam pour solliciter ñu ay ay bras on l'a appuyé jàppale le président de la république ba mu fal ses députés lan la ñu promettre woon dinañu defaral suñu terrain ñëw simuler ay travaux pas ben instant terrain sax ah, et ailleurs parce qu'on n'est pas bien représenté mais quand même c'est une population très intelligente très patient aussi très observateur les politiciens yves ils ont beaucoup de stratégies C'est de grands stratèges en commençant par le maire le maire il a toujours soutenu le président de la République le lu mu sollicité daf koy defal et il fait partie des interlocuteurs de cette commune parce que c'est le premier magistrat les garas sont là avec leur sagesse avec leur noblesse Le lu le président sollicité ñu def ko il waxé waxee rek top sen c'est parce que loolu lañ aada woo top mak dom top et pourtant on est des intellectuels on est des personnes très réfléchies on pouvait faire autrement Opposer ou di def lu bu boobaa dañuy assumer rek mais notre démarche nekkul si loolu pour l'instant li ñuy demander mooy pour être bref président de la république waxalaak say autorité waxalaak say ministre waxalaak say directeur ñu delloo wakaam li mu moom suñuy kilifa toog nañ fi y a deux semaines de cela wax bataille ken kenn oowu leen ñoo ñu tënkoon ñoom digaluñu li ñi def ni de wax nañ lu ne pour ñu bañ def point de presse mais dañ koy def parce que ñoom bu ñu waxee wax wax ba ba xamatuñ fu ñu jëm bañ ca point jot nag ñun jeunes ñu taxaw dafa jot ñun jeunes ñu jël li ñu moom. aéroport bii nii du demee nii yeneen yi demee kon encore une fois président dañ nekk ci période pandémie ñu waroon wax leneen wax nu ñuy def ba Covid bi jógee fi boobu ba léegi nii ñu rese resté à kon bu leen ñu génnee si loolu président li wakaam moom jox ko wakaam. li Ouakam mom ñun xaaratuñ ci juuf sar on a nos autorités coutumières de même que administrative juuf sar en tant que maire maire de Yoff la jëlé 20 hectares soit disant 557 parcelles pour waa Yoff kon gàcce ngalaam ñun ñi nga xamante ñun deux tiers yi ñoo duñ ko bayyi muy nax saay on a besoin des infrastructures on a besoin des équipements kon président. yaakaar naa ne suñu wax ji nii du tàbbi si nopp ku tëx di ñu dégg te d'ici peu ñu ngi xaar sa réaction on a nos autorités nga recevoir leen wax ak ñoom li waxaam moom nga delloo leen